nguurug Sénégal gannaaw bi nga xamee ne xaatim nañ ay accord ak ñi nga xam ne ñooy enseignants yi ba sax ñoom dakkal nañ grève bi ñu doon amal ñoom nag euh, xamle nañ niñ nar a doxalee lii de année scolaire bi. examen bu CFE nee nañ dinañ ko amal 22 ak 23 juin 2022 bu dee examen BFEM bi nag nee dina tàmbali le 21 juillet bu dee examen baccalauréat bi nag datam jàppaguñu ko. ba léegi nguur gi xamle nañ ne dinañ gunge ñii di école yi ak i jumtuwaay yoo xam ne kon dina mën a tax ba ñu gën a ñoŋal seenu jàng wante itam dinañ organiser li ñuy wax ay cours de renforcement pédagogique ngir gën a mën a encadrer ñi nga xam ne sax ñooy élèves yi def examen. ba léegi ci dogal yi nga xam ne nguurug Sénégal jël na ko jaarale ko si ministère de l'éducation li nga xam ne moom mooy composition première semestre yi dinañ ko amal ci 6 jàpp 13 avril 2022 ci moyen secondaire bi. bu dee composition deuxième semestre bi dinañ ko tàmbali le vingt 24 mars 2022 pour élémentaire bi. ministère bi xamle na itam ne élèves yi dinañ jël fête vendredi 1er avril bu 18h jotee ba mardi 5 avril bu 8h jotee. bésub tey bii nag fële ca Nigéria dañ fay màggal juddug Cheikh Ibrahima Niass ñu gën koo xam ci Baye Niass. muy amee nag ci fi ñuy wax état bu Zamfara ak état bu Kano bu ñu sukkandikoo nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy xayma mbooloo ña fa daje nee nañ daal lu toll ci 7 millions ci ay taalibee dajaloo nañ fële ca Kano foofa sax ki nga xam ne kon moo fay jiite xew-xew moom mooy Mouhamadou Khalifa Niass nee nañu itam lim bi mel wala sax ko ëpp kon daje nañ itam fële état bu Zamfara foofee nag ka fay jiite gàmm gi moom mooy xalifa général bu Medina Baye di Cheikh Mahi Ibrahim ñas ci xew-xew yooyu nag ndemeeku nañ ci ay teewaayu officiel ñu lim ci rek ku ci mel ni Mohamed Sanusi II mi nga xam ne moom moo nekkoon émir bu Kano te fi mu nekk nii moom mooy représenté xalif général bu médina Baye foofu la ca Nigéria. journaliste Walfadjri bii di Pape Ndiaye moom nag dañ ko menacé de mort gannaaw bi nga xamee ne kon dafa waxoon ci plateau bu Petit Déj. gannaaw bi nga xamee ne kon da doon joxe xalaatam ci plateau Petit des ci entretien bi nga xam ne kii di agisaar euh, def na kook ay média yu bitim réew moom Pape njaay nag ci biir waxam dafa xamle ne kii di Adji yoon mën na kaa topp ci li ñuy wax violation di secret de l'instruction li ko waral nag nee na Adji dafa wax ci mbirum dossier bi ak Ousmane Sonko te fi mu nekk ni dossier boobu mu ngi loxo loxoy yoon ba léegi Pape Ndiaye moom dafa jàpp ne daal justice bu Sénégal dina jafe lool ngir ñu daan kii di Ousmane Sonko moom nee na li mu gis daal moom mooy ñu seetal Ousmane Sonko wala boog ñu def ab contre expertise boo xam ne day wane ne moom def na. menace de mort yooyu nag ñu def journaliste bi di Pape Ndiaye ñu ngi ko defee ci whatsapp yenn yi fii ci Sénégal la yeneen yi bitim réew ñu ne sax am na ñoo xam ne jot nañ leen ci identifier. xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy fële ca centre Afrique foofa nag bésub samedi bi dafa am ñoo xam ne dañoo jóg di manifester daal ngir wane ne ñu ngi jàppale eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Russie ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex ak Ukraine. li ko waral nag am na at ci ginnaaw armée bu centre Afrique dañ doon jàmmaarloo ak ay rebelle yu nekk foofu la ca dëkk ba ay rebelle sax yoo xam ne dañoo xaw a am doole ba ci mujjantal ga nag eh, dañoo mujjee woon woo ndimbalu waa Russie. ca la soldat yu russie ñëwee nag jàppale leen ci xeex ba ba sax rebelle dañoo mujjee daw. dañ koy jeexal ak xibaar sport Clarence Seedorf nekkoon ancien footballeur hollandais moom nag dafa tuub dugg ci diine lislaam démb ci ajuma ji mu ngi ko defee fële ca Dubaay moom ancien joueur boobu nga xam ne sax football na euh, Milan AC ak Real Madrid moom moo. moom ancien joueur bi nga xam ne football na Milan AC ak Real Madrid moo ko xamle gannaaw ab tweet boo xam ne def na ko ci réseau sociaux yi te di ci sant ñëpp ñoo xam ne envoyé nañ ko ay message ngir ànd ak moom ci mbégte mi mu am ngir dugg ci diine lislaam moom Clarence fa nag di xamle ne tur bi nga xam ne moom la ko ndeyam ak baayam tuddee woon soppiwu ko Clarence Seedorf lay wéy di tudd. li la ñuy indiloon tey ci ay xibaar di rafetlu seen teewlu leen jox daje ëllëg